auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin suma salaatu wasalaam ala asrafil mursalin seydina mawlana wa nabiyana muhammad rasulillah ibn abdullah sallallahu alayhi santaat yàlla di julli ci sang sang bi di amaan mbégte ak contentement dellu sewaat ak yéen seen émission seral sa xol ci nabi seral sa xol ci bi nag euh, ñu ngi ciy nuyu bépp soppay Seydina Mohamed ñu ngi la ciy nuyu di la ziar waaye rawat na ñi nga xam ne ñu ngi toog di xaar seen émission seral sa xol na bi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ci mel ni Amina ñu ngi koy nuyu yaay Mohamed waaye di nuyu ki nga xam ne moo di Nabil Mokhtar sama soppe sama doom sama xarit macha allah di ci nuyu waay juróom bu góor Mohamed ak waay juróom bu jigéen euh, Fat Bintou Ndoye macha allah. waaye nag euh, di am mbégte contentement rek euh, di dalalaat ki nga xam ne moo di Kéba ci li nga xam ne moo di mbégte mi mbégte mi nag buñ koy wax kan la Seydina Mohamed suñu émission bi nga xam ne moom lañ ko duppee muy sara soxol ci nabi tey dañu bëgg ki nga xam ne moo di Kéba. ñi kay sétane mu seral sen xol ci sayidina mohammed way dama koy bay rek mu nuyo bokku téléspectateurs yi xamné ñoo ñi sétane sen émission seral sa xol ci nabi أعوذ billahi minash الشيطان rajim bismillahir rahmanir rahim الرحيم الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم rabbi sarax li sadri wa yasir li amri waxlul uqdatan min lisaanihi yafqahu xawli mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen wax baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi nuyu sunu jigéen jii ñu toog di soxna Maasu tabaarakallahu di ko bëgg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di nuyu sunu caméraman bi ak. allah ji ñu ngi koy nuyu bu baax tabaarakallaahu ñoo bokkoon léegi plateau bi uh-huh. ñu ngi koy ziyaara di ziyaara waa kër gi Alas uh-huh. di ko ñaanal yàlla moo xam lu mu namoo ci tele bi ak lim ci bëgg uh-huh. yàlla na ko suñu borom defal bi jaayi nabil Moustapha soppeem ba sallallahu alayhi wa sallam su ko defee ñu nuyu mbooleem koo xam ne rek mu ngi ñuy seetaan di wax rek na alaaji bu saaxo daan na wax ñett yii fu waay toog na ko sóoraale mooy ki nga tolloo xam-xam dina toog di la maanaam yaakaaroo ci xam-xam mhm. dina toog dina di la déglu mhm. ki nga xam ni tamit moo la raw dina toog di la déglu mhm. kon tabaarakallaahu ñett ñii ñëpp dañ ñuy déglu su defee ñi nga xam ne ñoo tolloo xam ah, suñu gaggee ñu gàggante ñi ñi nga xam ne tamit ñoo leen raw suñu juumee ne ñu dégg ne ñu jéggal ñi nga xam ne tamit ñoo ñu raw yi tamit su ñu gaggee ne ñu gàgganti kon xam-xam noonu lay doxee su ko defee ñu ngi ziyaar ñëpp di ndokkeel ñëpp macha allah euh, tey nag euh, émission bi dama koy fas yéene def gàmmu rek gàmmu gi nag lépp ngir Seydina Mohamed. waaye ki ko jagleel lépp ci Seydina Mohamed la. saayibul taaji saayibul darajati njool màkk njool Medina njool fépp. Seydina Mohamed ki nga xam ne moom rek la yàlla safoo moom rek la yàlla faale. ki nga xam ne boo ko joxee loxo yàlla jox la loxo mooy sangu-sang yi Ibn Abdullah kenn du moom ki nga xam ne nag mooy buntu na waaye mooy jaasi yàlla ji di leeru yàlla. Mm. Seydina Mouhamed soppe yàlla ba waaye suñu soppe ba waaye suñu soppe wasila alhaaji Mouhamadou Moustapha Ngom moom moo ñu xamal li ñuy def ndax fu ñu bëgg ci yonente bi ba àgg fa rek euh, suñu wasila boobu moo tax ñu àgg fa ku la gën a tuuti ci ñun nag euh, bu toogee di wax ci Seydina Mouhamed sa xol day sedd guy rawatina ñi nga xam ne ñooy taalibi sëñ euh, maam As Malick yi ndax maam alhaaji Malick ku ne xam ne léppam yonente bi la woon ci mel ni sëñ Touba ah sa saat bu abi ñoom ñëpp seen lépp suñu mag yooyu seen lépp Seydina Mouhamed la woon ba tax na ki ma toogal nii nee naa la ndaw la waaye ndaw lu engagé ci diine la ku bëgg yàlla la kuy koo xam ne day toog ay mag ci wax ci ñoom ci li nga xam ne moo di diine ji tey nag ah, dama fëskee ne ànd ak ñu gàmmu gàmmu goo xam ne lépp ci seral sa lay doon ci Seydina Mouhamed Keba ah, maa ngi lay dalal sa émission seral sa xol ci nabi tabarakallahu shukran masu mm-hmm. Mm-hmm. jazakallahu xayran mm-hmm. ah, nga wax ñu waxtaanee ku am solo koo xam ne tabarakallahu li tax ñu am mu ngi jóge ko ci moom moom la yàlla di wax ne muhammadu rasulullahi walladina maahu ashiddaau ala alkuffari ruhamaahu baynahum tareehum rukkaan sujjadan yabtaxuuna fadalan min allahi wa ridwana ba ila aqri aaya kon sayyiduna muhammad moomu sunu boroom taggee na ko fu nekk avant kay kenn di tagg kon moom moo tax ñu am ndax sunu maam Cheikh Sidi Hadj malik day wax ne wa innahu id arada allah nashatana abana min nurihi nuura nabil alam ñu ne ko moo tax mu ne Cheikh Sidi Hadj malik neena na yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla ngi ko bind ci leram ñun nak yalla ngi bind ci leram yonent bi kon yonent bi moy kenn mom rek lañu ñu mom lañuy top ndax yàlla moo ñu ko royloo mm, te waruñoo roy kenn ku dul yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. ndax moom lañu yàlla royloo mag ñu baax ñi fi ñëw ñëpp si mm-hmm. tànku yonent bi leen tegoon seen tànk mm-hmm. kon mooy ki nga xam ne kenn la tabaarakallaahu sa soppe ba sa xarit ba alxaaji Modou Ngom ndawam yëpp ci leeru yonent bi la leen nandal ñu tax ñëpp bëgg yonti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax gis nga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ki tax ñu amal ñu. Mm-hmm. mooy sallallahu alayhi wa waaye ki tax nag ñun ba ñuy rukkoo di sujjóot. Mm-hmm. mooy yonent bi. sallallahu alayhi kon nga dégg ne képp koo xam ne julliwut. Mm-hmm. julliwut. koo xam ne julliwut. génn nga ci kaadaru jullit doon yéefee waaw nañu bàyyi xel loolu baax képp koo xam ne julliwul génn nga ci kaadaru jullit yaa ngi ci kaadaru yéeféer kon yonent yàlla Muhammad moom la yàlla royloo ndax boo xoolee mag ñu baax ñëpp mhm. suñu maam tuuba sax mhm. Cheikh Sida Hadj Malick. Mhm. maam Abdoulaye Niass. ak keneen keneen. ñi nga xam ne tey ñoo doon mag ci diine ji. ñooñu fi njëkk si Omar Foutiyou Tall Cheikh na Tidiane. di ko topp ba si saxaaba yi. kon bu ñu xoolee ñooñu nga xam ne ay boroom xam-xam leen woon. seen lépp ñu jox ko yonent bi. kon asuma ak ndaw ñi. te gis nga diine. xale la gën a soxla. ñun xale yi ñoo war a topp jàng kan mooy yonent yàlla Muhammad léegi jàng kan mooy yonent yàlla Muhammad dafa rafle mm-hmm. ci àdduna bi te ki nga xam ne moo tax ñu am ñu amal ñu mm-hmm. wax dëgg yàlla waruñ ko waruñ ko waruñ ko sàggane waruñ koo sàggane maasu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mm-hmm. gis nga nit buy génn sax da xam ne lii bu dutal yonent bi yàlla du ko amal kon yonent bi moo sunu lépp waaw sallallahu alayhi wasallam macha allah euh, euh, na xam nga euh, Kéba man dama fees del ci Seydina Mouhamed ba bu nit di wax ci moom damay ne ci beneen monde ah, moo tax maa ngi taxaw lii di la déglu ndax ah, doyalu ma waaye nag ah, Kéba ñu toog nekk ci jamono boo xam ne dafa doy waar ndax Seydina Mouhamed dafa am lu ci yàlla wax dana la bul tollaale bul niraale te bul dendale léegi nag dañu dem ba fii ci suñu suñu Sénégal bi ñu ne dañuy gis ku jël nit teg ko ci palaas yonent bi ndax moom rek la yàlla safoo nga gis ku teg jël nit jël ko jël jëmmam teg ko ci jëmmi Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam Keba dama bëggoon euh, nii ñu réeree nii ndax Sénégal euh, waroon na nekk ci dëkk boo xam ne dëkk boo xam ne bu bu bu barkeel la bu naat bu am naataange comme ni ko sunu maam yi bi mu fi nekkee ni mu meloon ndax ndeysaan euh, sunu maam borom Touba bi mu fi nekkee jamono jooju ku ne xamoo ne àdduna melul nii sëñ maam alaaji Maalik bu ñu fi nekkee ku ne xamoon na ne àddina melu nii Seex Saddu Abi maam Abdalaay Ñas ñooñu bi ñu fi nekkee ku ne xam na ne àddina melu woon nii ndax dañu jëloon seen lépp teg ko ci Seydina Muhammad jagleel ko lépp ah, ba tax na jamono bi ñu toll nag da ngay gis ku jël nit teg ko ci palaas yonente bi ah, loolu lan nga ci ban jàngal nga ci am ak lan nga leen di jàngal ñi nga xam ne li yàlla wax ci yonente bi ak nu mu toll ak dara jàpp waaw maasu mhm. kenn du yonente bi képp ko xam ne dangay jël sa kilifa di ko tëkkale yonent bi ndax nga sa bopp. Mm. ndax kooku ngay tëkkale yonent bi amaana yonent bi lay ci lépp nag. Mm-hmm. gis nga mag yi dañoo bind bàyyil ñi ci. Mm-hmm. bàyyil ñi mm-hmm. ñun ndaw ñi ñu war koo jàng. te boo demee sax si Xaj Malik xilaas ba mu jeex. lépp yonent bi la ko tagg. sallallahu alayhi wa sallam lépp. te wa madaxul Moustapha fawzun wa xunmun fa maa xaraja alayhi min alxaniin. si alxaaji Malik nee na. tag yonent yàlla Muhammad maanaam texe la texe àdduna ak àllaaxira la kon yonent bi kenn melu ni moom gis nga mag ñi dañoo jël seen lépp jox ko yonent bi Mouhamadul Bouchayri yi borom xam-xam la dafa bind benn téere tuddee ko burdatul madiyah lépp ngir tagg yonent yàlla Muhammad dem na bana Muhammadun basharun waaye laakal bashar nee na Muhammad nit la comme ñun waaye nag bokkul ak ñun maanaam nit la comme ñun ndax yonent bi nit la comme ñun waaye nag yàllaa ko tànn si 313 yi def ko muy ab yonenteem moo tax Seydina Muhammad kenn mënul mel ni moom parce que bu kenn meloon ni moom yàlla du ñu ko royloo ndax yàlla yonent bi rek la ñu royloo roy leen yonent bi dem na ba wax ci alquran na lépp loo xam ne yonent bi indil na leen ko na ngeen ko téye lépp lu mu leen tere ngeen bàyyi ko cër wér. kon yonent bi moo ñu moo fi nekk. moo fi nekk waaw sëriñ ci nag. ñi nga xam ne ay kilifa leen yàlla dafa dafa dogal ñoom ñu jeex si yonent bi seen lépp ñu jox ñu def ko ñu jox ko yonent bi moo tax boo leen di diir mag rek da ngay daanu ndax dañoo nekk si jamono boo xam ne maanaam ñuy diingat dañoo bari am na ñoo xam ne sax gëmuñu yonent bi am na ñoo xam ne dañuy taxaw di sàllalu yonent bi am na ñoo xam ne dañuy taxaw di wax lu nekk yonent bi te billahi allazi la ilaha ghayruhu kenn du sallallahu alayhi wa sallam ndax xoolal Iblis. Mm-hmm. Iblis. Mm-hmm. fu mu tolloon ak fu mu nekkoon ak ban martaba la nekkoon mais loolu yëpp mm-hmm. loolu yëpp maanaam ñàkkee kerse gi muy ñàkkee kerse yéen ci yàlla Muhammad moo tax yàlla teg ko lim ko teg kon yonent bi kenn du te xoolal Iblis nu mu amee doole ku ama ama doole la waaye dafa dem def ba jëmmi jamono boo xam ne daraan diir yonent bi mbagg lu yàlla wax mu teg gi teg ne kon yonent bi kenn du moom. kenn du moom sallallahu alayhi wa sallam kenn du moom ba tax na Kéba li mu wax rek kenn du ci teg dara ndax Seydina Mohamed mooy lépp. ndax boo demee ba ba jël place di ko teg di ko tëkkaleeg say sëriñ di ko tëkkaleeg yonent bi dangaa juum waaye kooku nga xam ne moom ngay roy di sa sëriñ moom léppam Seydina Mohamed la. ndax ku déglu maam maam borom Touba mu ne wa innahu is aradallahu nas atana abana min nuurihi nuurun nabil alam nee na nit ñaa ngi de moo ne nit ñaa ngi xëlu di dem di wuti ngëneel te nga ne lang ci rasulullah waaye na xaraaw dafaa sax dàkk kon nit ñi nañ jël ci bayit yi nga xam ne moom la fi kilifa yi bàyyi woon suñu sëriñ su baax soobu ci yàlla nañu yàlla taas ci seeni barke di ko firi ñu xam lan lañ doon dund ak Seydina Mohamed ndax ñooñu bëgguñu woon dara ba tax suñu maam Alaaji Maalik boo gisee moom moo feeñal gàmm moom léppam Seydina Muhammad da lay wax ba wax la juddu ba na mu dikkee na mu ñëwee na mu taxawee kon kooku kenn du moom hmm. ku ci mel ni sunu wasila bi muy El Hadji mu Moustapha Ngom moom dañuy daf moom waxuma la waxum ñun ñu rek dara mais daf ñoo seyloo ci Seydina Muhammad kon ñooñu xamoon nañ kan mooy sang bi kan hmm. mooy Seydina Muhammad ki nga xam ne mooy saayibul buraax kooku mooy sangu àjjana kooku mooy lépp yàlla euh, damay bàyyi rek am na béyt yoo xam ne sunu maam Az Malik bindoon na ko ci euh, Seydina Mohamed nga duggal ñu ci rek tuuti ñu doog a tàggatoo ak ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan nee naa Seydina Mohamed kenn du ci doyal waaye dañ ciy am ay pàcc yoo xam ne bés bu ne ci àjjuma yi dañ leen koy indil. Euh, Maasu du ma la dog. Mm-hmm. ndax suñu maam. Mm-hmm. سي احمد بامبا رضي الله تعالى عنه ليغا خامني موي خادم القديم مانام ديمون نا بوغ جيم بوغ يونتي بي صلى الله عليه وسلم موتاخ موني موم موي مبيندان يونتي بي دا فا واخنا لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البرايا سمد والله سيرن توبا نينا غيسوما غيسوما كوم ملني يونتي بي صلى الله عليه وسلم لم يبدو مانام غيسوما موك كوم ملني يونتي بي سرا وجهرا في البرايا سمد نينا مو خامغا sow jant ak lépp koo fi doon làmb mhm. doo gis ku mel ni yonent yàlla Muhammad si alxaaji Malick mhm. mi nga xam ne tabaarakallahu dafa jël addunaam yëpp topp ko ci yonent bi ndax jàngal nañu juddu ba mhm. jàngal nañu gane àdduna ga jàngal nañu dem màkk ga jàngal nañu jàngal nañu jàngal nañu ba keroog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dugg bàmmeel lépp sax si alxaaji Malick bind na ko kon mag ñi dañoo toppoon yonent bi dañoo bëggoon yonent yàlla Muhammad ndax dañuy xam ne ñoom dañoo xamoon ne tey jii nit diine mëntu taxaw mukk mukk mukk mukk mukk te yonent bi bokku ci. ndax boo demee ba ci julli tey julli. Mm-hmm, mm-hmm. mais ku julli dëgg la nag si sa compte lañ koy verse mm-hmm. waaye yonent bi sallallahu alayhi wa moom la yàlla wàccee julli. mu jotaleen ñu ko. mu defal ñu ko tabliix ñu jot ñun ñi ñëpp. te yàlla dogal ba ñuy julli. kon yonent bi moom la ñuy yàlla royloo. amuñu kenn ku ñu war a roy ku dul yonent yàlla Muhammad waaye nag. wasila lu lu ñuy wut la mhm. luy doomu aadama di wut la mhm. ci moroomu doomu aadama koo xam ne day xencu mhm. jaxantalu yonent bi Cheikh Alxaaji Maalik day wax ne yow mi bëggul sëriñ na nga dem tànn sëriñ boo xam ne sëriñ bu xam. Mhm. soobuwaay la. mooy ku xam yonent bi. dëgg la ku xam jaamu yàlla. Mhm. kon sëriñ léegi dafa jafe. Mhm. sëriñ bu lay teg ci yoonu siraatal mustaqim dafa jafe waaye nag am na ci Sénégal ñoo xam ne sëriñ coo xam ne. boo leen dégloo. wallahi danañ la jàngal kan mooy yonent bi. danañ la wax yonent bi nan mooy melokaanu yonent bi. pour nga jëfee ko ndax ñun ay jullit leen. yonent bi la ñu toppaloo kon képp ku ñu topp te topp yonent bi dañuy nax suñu bopp waaw ndax yonent bi keroog yomal xiyaam moom moom kese la yàlla naan ko mhm. irfa maa tishaa maanaam rambal mhm. li la soob yonent bi mooy ramb keroog moo tax waruñu ko fay bàyyi di wuti keneen déedéet déedéet tabaarakallah ndeysaan li nga wax léegi dama koy dëggal ndax barki Dembo Ndiaye laa dégg suñu papa Omar Cissé di ko wax ca gàmmu bam loolu gàmmu foofu ca xalambaas ah, mu ne leen sëriñ baax mhm. waaye sëriñ bu lay toppaloo yàlla ak yonent bi kooku sëriñ la waaye boo demee ci sëriñ bu doon yéeg juróom-ñaareelu asamaan di bëtt suuf juróom-ñaar génne te waxula yàlla yonante bi ma ne bàyyi ko fa dem ndax lépp lépp lépp Seydina Mohamed la te yàlla moom rek la ñu royloo ba tax na tey suñu émission sera sa xol ci nabi nii lañ ko defee waaye du tee nag nañ leen may suñu benn euh, sikkar boo xam ne Sam Mboup ak ki nga xam ne mooy oustaz Pape Hann taggee nañ ko Seydina Mohamed xam naa ne euh, dinañ ko dugal mu doon suñu tëjtalu émission ba tax na rek euh, Kéba comme ni ñu nuyoo woon sànq dañuy bàyyi ñu tàggatoo ñi nga xam ne ñoo ñuy émission seral sa xol ci nabi euh, ñu doog a tàggatoo. Euh, shukran. Mhm. Euh, Maasu. Mhm. ñoo ngi nuyu mbokk yëpp. Mhm. képp koo xam ne rek yaa ngi ñuy seetaan ñu ngi lay wax nga bàyyi xel chaîne bi di Kifne TV. waaye di nuyu tamit ki ma tuddoon sànq xam naa ne sama doomu bàjjen la moom waaye nag kilifaam laa. muy soxna Tislim Fall. waaw moom moom mooy loolu. waaw moom moom dagal ma vidéo boo xam ne moom laa koy moom laa koy bégee. Ah, ndax ndax ndax ndax ndax ci bëgg àddunaam. waaw di ko ñaanal yàlla nag. Ah. mu may ko borom kër gu baax. waaye di nuyu yaayam. Mm-hmm. soxna Rabi. fa tabaarakallaahu muy gu baax koo xam ne. Mm-hmm. toujours rek day bëgg di ma gis. Eh, tabaarakallaahu di nuyu mbooleem koo xam ne rek. mu ngi ñuy seetaan rawatina nag waa njabootu maam Khalifa. njabootu maam Khalifa ñu ngi leen di nuyu oustaz Doudou. Mm-hmm. Euh, mboolem koo xam ne rek mu ci mu ci ak sunu yaay soxna Mbambi Sall. waaye di macha allah loolu foofu la ñuy tàggatoo ak yéen waaye soxna Tislim yow it ñu ngi lay nuyu Fall Ndiaga sa jàmm yàgg waaye sa yaay turandoom ba muy soxna Rabia sa yaay nekk turandoom moo jaamu woon yàlla. jaamu yàlla bañ ne ko loo ci bëgg mu ne bu yow mal xiyaamee li ma jaamu yàlla yëpp nañ ko jël def ko jaaru tak takkal ko Seydina Mohamed ca loxoom ba kon soxna Rabia sa turadoo moo defoon loolu yàlla na yàlla dimbali la ba nga mel ni moom wala nga moon maanaam doo ko sut waaye yàlla na yàlla dimbali ci gën a sopp ki nga xam ne moo di Seydina Mohamed ndax nee naa émission bi tey moom lañ ko jagleel ba tax na damay nuyu Kéba bi nga xam ne moom laa toogal tey ci émission Seral sa xol ci maa ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm di la wax ne rek yàlla yàlla guddal sa fan yokk saawaan baawaan lépp loo bëgg ci sa euh, liggéey yàlla barkeel la ko ci barke Mouhamed yokk ba yokk ko waaye di nuyu ñi nga xam ne rek ñoo la ñu seetaan seen émission Séral sa xol ci nabi mel ni Amina Ndoye maa ngi koy nuyu day laaj émission bi lu bëri ndax dafa gëjoon am waaye ku ci mel ni Nabil Muxtaar sama doom moom it maa ngi koy nuyu di nuyu bàjjenam Xarijatu Sekk maa ngi leen di béggee lu bëri duma fàtte Yacine waaye duma fàtte El Hadj Seck El Hadj Seck sama rakk maa ngi koy nuyu di nuyu sama seexandoo Mouhamed Seck waaye di nuyu ñëpp di nuyu képp nga xam ne rek yaa ngi toogoo di xaar sa émission sera sa xol ci nag bi maa ngi lay nuyu dina la di ñaanal wës maa ngi koy ñaanal bu baax sunu caméraman bi waaye Serif duma la fàtte sëñ Moustapha yàlla na sa jàmm yàgg yàgg njaboot gi yëpp di wax asalaamu aleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu seen beneen émission seral sa ci nag bi te tuusuwuma ci buumu jokkoog moom. illa ida tayful alam sax ñoo wàcc ci sama kaw man Mansour. nasaxtu aaya xubbiha. góor gi ne nasaxtu nag laa folle aaya xubbiha soppu mandarga kéwél ga. bi xubbi taaha fan adam. ma remplacé ko soppu taaha te muy Seydina Mohamed fan adam soppu kéwél ga dem. Muhammadul ajmalu man. mu ni Seydina a gën a rafet ku mu mën a doon. fil kawni xalqan wa shiyam. ku nekk ci àdduna bi ci mbind ci jikko njool maaka ko dàqale. mursilin mu ne Seydina Muhammad tey yonent bi gën ci lu yàlla bind. li lin si wal jinni yaw ci nit ñeeg jinne yaw mboole seen. ka annahu kama yasha. ba daanaka moom njool màkka. sawarahu baari nasab. sawarahu melal na ko baari nasab ak yett ji mindee fi kama yasha comme ni mu ko neexee. minal kamali wal jamaal. cig mat ak. تار ممر رسول الله يعطي تار وشم أكي أكو يكتكو في عالم الغيب وعن وعن موكلنا ذات العلوم ذات العلوم والحكم جبني خم خم يا أخرين خم خم في عالم الملك بنيك جعل عالم الملك لم يصابك في ولاك وقد حال دمي لاج دخ سال بي أمنكو في بقر رسول الله بقر كنف لني Eh, eh. alay bam seex sa waa ji sa soppe bi ki nga bëgg ki nga ziyaara ji woon ki nga ziyaara ji woon ki nga sopp moom rasulillahi lam yu saawu ala yasan sekk sa waa ji nee na du ñu tolloog moom fii ulaaka في علاقة سكاوى يا رسول الله وقد حالا تمير مم دقلنا سنن من كدونهم وسناؤ سنن لير من كتوكيتي يو وسناؤ أدي كتكو دونهم وليسلين دو سير مورم دا يا رسول الله أنت مصباح مني سيدنا محمد أنت يا رسول الله misbahu kullu fadlin fa ma tas yaay lamp bépp ngëneel tas duru du gongi ko duru ila dafika la duwaabo laka daatul ulumi min jërëjëf saab ko min haa fooy daan fooy nak tatabaha tatabaha tatabaha tatabaha تتباهى تتباهى بك العصور تتباهى تتباهى بك العصور dama toog bi bisu gàmmu Tiwaawoon ñu war ak fanaane gàmmu maag sàmbu manaan tey jii lan lay waxtaane ndax tey sonn naa tatabaa aw ma inspiration tatabaa tey sonn naa tatabaa ma xool sam tatabaaha muy wayu hamziya tatabaaha bi mu agsee ba ci tatabaaha tatabaaha pour wax la sama digganteeg moom tatabaaha maak moom duñu répété tatabaaha ca bas ba tatabaaha dañ maa jox micro bi rek eh, tatabaaha ma xool saam mm. rek ne tatabaaha bi kal usul tatabaaha bi kal usul bisu gàmmu tatabaaha rek saam ne tatabaha mani ko tatabaha tatabaha samne ma tatabaha tatabaha mani ko tatabaha tatabaha tatabaha ara anu ñi bëgg rasulillahi tatabaha tatabaha bika al usur tatabaha kërok la ni jëmono ngay pukure tatabaha kërok la ni mu mani bisu tay ji la woon tatabaha kërok juddu rasulillahi tatabaha lolu bisu gam la iya mani bisu tey jii la woon. ci waxtu wi tem. 1670. 20 avril. guddi gi dem bëccëg bi ñëw. bi njool màkk ñëw. ma ne tatabaaxa puukariwu na. tiitaru na. tatabaaxa yëkkatiku na. tatabaaxa puukariwu na. bi ka ci yow rasulillahi. al usuuru jamono. jamono ngay jaayu. jamono ngay tiitaru jamono ngay yëkkatiku ngir dëkkug Seydina Muhammad li mu dégg moom rasulullahi li ko yàlla dégtal moom rasulullahi mu jël noppam yi sës ko fa ñuy dogalee maam Adama déggul loolu ñun tal Ibrahima déggul loolu Moussa Zulkifli Ilyasa daan yàlla dégguñu loolu moom rasulullahi alaaji Paap بك الاصول أه. والتصميم بك بك عليا وبرا عليا هو بلا أه. للوجود منك كريم أه. من كريم اباء ورباء نسب تحسب العلا العلا بعلاه ليجي نك خلدتها النجوز جوزاء حبذا حقد حقد سودة وفخار ليجي نك رسول الله الاسماء كون كي كي دوينا ويرواي دوينا آه، ويرواي yaay doy ma kaara léegi nag njol màkka sa gannaaw la ñi fa boo fa ak xam ne benn VIP bi do nga baarakallah baarakallah